d'abord première question bi ndax du am chevauchement ak ASPT. wala yeneen agence touristique yi. du am sax chevauchement avec le ministère de tutelle parce que man am naa opportunité mener étude bi ñu war a yóbbu conseil interministériel avec le top management du ministère maa doonoon consultante bi ànd ceeg cadre ministère yi ministère du tourisme et des loisirs. mm Euh, bi ñu tënkee document bi ci recommandation yi ci génn mooy tourisme bu bëggee dox ñetti tànk la war a am l'institutionnel mooy le ministère et membre démembrements agence yi services yi ngay wax mm-hmm. le secteur privé touristique et enfin l'académique te bu ñu xoolee ci gestion secteur bi ñaari tànk yi taxaw nañ bien que ñun ñu ngi koy jàngale ñun ñooy former secteur privé bi ñooy formel ministère ñooñu nekk ci agence yi ñoo leen di formel ne serait-ce que formation war na tax ñu teg aménager benn espace bu ñuy toog di waxtaan privé bi ne nii lañu bëggee ngeen formel ñu ko nii la ñu bëggee ngeen tëgg seen curricula ñun tamit ñu adapté def ci liñ ci mën loolu benn la beneen bi mooy lan réseau bi dañu seetlu d'abord c'est pour les universitaires ah. Mm-hmm. <laughs> ce n'est pas simplement pour le tourisme ou le ministère. D'accord. c'est pour les universitaires dañu seetlu université sénégalaise yi lu ci ëpp ñoom duñu ñu jokkalante seen biir dañuy am ay partenariat ak l'Europe les États-Unis le Canada ainsi de suite mais fii ci suñu biir lëkkalante bi day des un secteur comme le tourisme qui est en quête de son statut scientifique a besoin quand nit ñi toog ñi ko seq di ko jàngale y a huit universités sénégalaises qui enseignent le tourisme aujourd'hui réseau bi ñun ñoo ko seq huit université sénégalaises publiques